SMS yi ak données personnelles yi man dama jot ay euh, ay ay xabaar yu bari jot naa sax benn journal bu ñu bind ne dañu mettre office du bac en demeure et cetera bon mënuma ci sori parce que xañ na am na mais ñun yëgaguñu ko euh, te bu amee itam ñun ay républicain lañ lépp lu ñu wax ne lii yoonu réew mi tere na ko duñ ko def loolu moom amul amul benn sikki sàkk mais nag euh, damay ñëw ci sms sms mooy man dama jël sama téléphone wala sama jumtukaay ma def ci benn message def sa numéro téléphone mu ñëw ci sa téléphone def naa ci diggante boobu yow sa numéro téléphone wala sa tur wala sa dara keneen mënu koo xam même message bi ma la envoyé sax keneen mënu koo xam à moins que mu nekk waa Sonatel ñoom ñoo bu dee ci Sonatel la ñoom ñëw fa dugg euh, ne diw envoyé na message diw loolu moom mën na nekk xañ na mais euh, nit koo xam ne lam lambda mënoo xam ne kii envoyé na kii SMS te ku nekk. message bi ñu lay envoyé sa bos la maanaam Samba Ndiaye dama la naan Samba Ndiaye yow jàll nga wala Samba yow da ngay dem def deuxième groupe et loolu la ñu lay wax mais euh, Samba Ndiaye loolu nga koy wax noonu xaritam bi nekk ci wetam bu ko yëg parce que du ci téléphone ci téléphone Samba Ndiaye léegi nag loolu ci ay téléphone lañ koy def maintenant téléphone boobu euh, xale yi jox nañ ñu seen numéro mais ñun dañu xool numéro yi ñu gis ne yu ci am na ci yu bari yoo xam ne ay numéro fixe la yooyu mënoo ci def loolu <coughs> ñu gis ne tamit yi nga xam ne ay numéro portable la boo ci jéemee en euh, woote wala nga envoyé ci dina ci am yu ci bari yoo xam ne yi ka lay wuyu fa mu nekk ak fa candidat bi nekk bokkul maanaam mbokk candidat bi la rek wala ku xamante ak moom wala voilà mu joxe numéro mais moom xamuloon ne ñun dinañ jëfandikoo numéro boobu pour yónnee ko ci lu amee solo noonu moo tax ñu ne candidat yi léegi comme ñun dañu leen a nara yónnee seen résultat ci seen téléphone jox leen ñu numéro bu baax boo xam ne bu ñu yónnee dina ñëw ci yéen